I love Bamtare, you love Bamtare, we love Bamtare. Bamtare, Bamtare, one team, waa Sénégal, déglu leen ma wax leen, ñu doon nelaw yeewu leen, lu gën si yéen ngi mbuur, seeti leen Bamtare, one team, If you want to buy a land or a guest house to stay, go and see Ibam If you want to build a house, go and see Ibam Anything you need about Asi, go and see Ibam My number real estate, Bam Tariq, Bam ñi ñoo noppal askan wi ñu doon nelaw yeewu leen yeewoo leen si bamtaare bamtaare amuñ morom wawti one dream I love bamtaare bamtaare bamtaare I love bamtaare I love bamtaare you love bamtaare wilaw bam tarig bam tare bam tarig one team one dream yéen waa Sénégal déglu leen ma wax leen ñu doon nelaw yeewu leen lu gën si yéen a ngi mbuur seeti leen bam tarig one team one dream if you want to buy a land o a guest house to stay. Go and see Ibam If you want to build a house, go and see Ibam Anything you need about us, go and see Ibam My number one real estate bamtaare bamtaare ñi ñoo noppal askan ñu doon nelaw yeewu leen yeewoo leen si bamtaare bamtaare amuñ morom wanti one dream I love bamtaare bamtaare bamtaare I love bamtaare